ah jërë ngeen jëf mbokki lam mbokki internet Actubuzz ah ñoo amati mbégte kontaan saa su ne mais ñu amati mbégte nag bu baax di dalal ay ndaanaanu làmb xale yoo xamante te tey ci làmb kenn dootu leen présenté tey maa ngi dalal Alaaji Makan ñu fas yéene waxtaan tey li nga xamante ni tey jëm ci làmb lu bare bare bare bare bu ñu Alaaji Makan xel leen ci bari Makan borom fekkee TV xale la boo xamante ne nee naa la waaw ba mu ñëwee ci yëf yi yàggul mais yàqu fi déedéet waaw parce que ñu ne xale loo xam si ne bokk ki mag ndab la ñuy waxtaan ci làmb lu am solo la bëri lu mu wund dafa ñu cof làmbi démb mais dafa ñu wax làmbi tey mais làmb tey jamono jii daa def nekk loo xamante ne tey ah dafa defar làmbi démb parce que ku ñu dégg démb tey a defaru bu tey bonoon wala bu démb bonoon tey du baax kon waa démb ñoo ñoo defaru woon moo tey tey tey baax ni ñu ko faral di waxee rek dañaan wuri ba dem na kii wuri ba dem ngeen taali bàkk war mbaam lu waaye doon jaay lépp mu lambu kon boog maka na ngi nii ñu fas yéene waxtaan moom alaaj maka ñu ngi leen ñoo ngi lay nuyu Abou di la ziar bu baax a baax a baax di amaat mbégte bu baax a baax di ñëwaat fii ci suñu plateau. Mm-hmm. nee naa leen fii nekk na kër goo xam te ni kër gu ñu miin la te suñu kër la. Mm-hmm. di rafetlu sa liggéey ndax nee naa la naam bi nga duggee ci làmb yàggut. Mm-hmm. waaye fexe nga ba marqué nga ci empreinte. ci jom ci fulla ci fayda ci bëgg sa liggéey. dañuy ñaan suñu borom lafal la cat rek. di la wax ne bon continuation. di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci technique bi yëpp ndax bu ñu waxee Actubuzz xam ne équipe la mhm. ñu ngi jaajëfal di rafetluwaat seen liggéey bu baax a baax a baax di leen nuyu bu baax mhm. abu acca ñu doxal comme nee nga làmb bi démb bu neexee làmb bi tey la mhm. kon acca ñu doxal tey jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Alaaji Makan comme li wax léegi day naa bu làmb bi tey neexee làmb bi démb neexoon kon bu làmb bi démb ba noonu làmb bi tey du baax mais tey jamono ji Makan yan jàng nga def jamono ji ci làmb jamono ji ñu toll saison bi ñu gis nii làmb combat bi taxaw la mu seen de sa benn mbër ci VIP muy la de guerre loolu dañ ci waxtaan mais bu ñu gënee xuus si émission bi incha allah dañu leeral ci loolu tuuti. Mhm. mais jamono ji lan nga gisee làmb. wax làmb. Mhm. abu neex. Mhm. làmb dekkiwaat. làmb njar benn juddu. ndax yaakaar naa ne Balla Gaye 2 ak Boy ñan doy na tàkku tàkkusaan dëgg la kuy sa baay nga ne déggoo doon nu mbër gi Boy Niang di seen i jaay. waaye Balla Gaye boo ko waxee ñu ne doomu Double Less màgg na. bëreeg moom saison 2006 2007 la dugg ci làmb marque ci empreinte am jël tuuti roi des arènes war a daje kan Boy Niang mhm. nga xam ne jóge woon na Pikine bëri faak Eumeu Sène duggoon Pikine bëri faak Tyson Junior mhm. mhm. duggoon Pikine bëri faak Bathie Seras duggoon Pikine bëri faak Boy Sey war a dajee kan Boy Niang combat confirmant la ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang muy combat bu neex waaye bu fa jógee dañuy xuusaat ndax yaakaar naa ne a B52 gis nga seen combat la ñu bëree woon la coow la bare deret ji bari woon na mhm. coow li bari woon na mhm. waaye fa làmb jooju te Moustapha am di tin moom moo mujj am ndam mhm. tey mu war a laajawaat muy revanche Bombardier jóge ci Balla Gaye 2 jóge ci Eumeu Sène am lu mu def Moustapha gëj a compétir ba xam day wone wonewaat looloom déet abu ñu doxal yaakaar naa ne làmb li fi dekkiwaat bari na ndax Modou Lo Ama Baldé Gris Bordeaux dëgg la ndax ku ñu sa ndax Ama daa juddu kër Fàllaay Baldé dëgg la fekkoon na zil nekk ci làmb fekkoon Paate Baldé nekkoon ci mbappat dëgg la mu dund mbër gi mhm. donnu mbër gi mhm. daa judd fekk ngembuli ci dëgg kër gi waaye daa dajeeg li muy génn ci buntu kër gi mu dëgg ci tànkam takk dëgg la ci ndigg li ñu ne kooko yaamaa dëgg la mu màgg mhm. bëreeg ñépp ñu war a bëreer tey muy boo xam te ne daf koy dugg ci ténor yi ginnaaw bi mu bëreeg tafaatin ba pare day bëreeg Gris Bordeaux confirmant la ba xam amaa day bëreeg Modou Lo fii lay leere ba xam amaa day duggaat ci cour de grand bokkaat fii lay leere waaye kan lay dajeel ah Gris Bordeaux. le tigre de Fass. kookoo doonu Mbaye Guèye. doonu Mbaye Guèye. doonu maam góor gi Ndiaye. oh waay doonu Faga 1 ak Faga 2. dëgg la. kookoo dekki Fass làmb. Mhm. tey bu goney Fass yi bëggee làmb bari na ci. dëgg la mu rëy ma. Mhm. fecc mi. Mhm. tàllal sengoor gi. jublu ñeenti xibla yi. dal di tuus gi di jekki jekk xam nga ah. sànni wat sengoor gi jaayu. sànni sengoor jaayu. xam nga loolu taarixu làmb tuuroo soow mi. Moustapha Gueye bu ko musaan def. sol bu bu naat yëngal bopp daw ñëw. waaw mu war a laaleeg Ama. dëgg la. jiri bokk na ci mbër yi dàq songu ci làmb ji. waaw mbër mu mën a songu. te daa duggoon Pikine. daan fa Tyson Junior. dëgg la kenn du ko bàyyi xel dem si yàlla sa ba Bordeaux daf ko daan. muy sën. bëre faak Eumeu Sène ñaari yoon. premier combat bi dafa bëre ak Eumeu Sène daan Eumeu Sène. deuxième combat bi Eumeu Sène daan ko. mbaa xam nga ne diggante Ousa Saw. Mhm. bu Faas. Mhm. ak ki nga xam ne moom mooy Gilles Balde Gris Bordeaux àtte woon làmb jooju. combat bu metti ba. combat bu metti ba ñu bëree daggante xeex am njaay indi Diop loolu yaakaar naa 92 la woon. dëgg la stade Iba Mar Gris Bordeaux stade Iba Mar. stade Jomba. stade Jomba. fa la Balla Gaye bëree woon ak Bathie Seras. mu àtte làmb jooju booba bi ko Zil Balde waree ndomba Ousa Saw. Mhm. jàpp ci rase yi di ko dóor ci la Gris Bordeaux ñaaj. waaw tëb barrière yi daw àtte amaan ak bor bi la. ba xam giri dina àtteem du àtte bor baa ngi nii dina leer ci diggante Ama Baldé jërëjëf Makan Alaaji Makan loolu ñuy xamante ne mooy li ñu leeral ci côté làmb am na solo lool lool lool lool nag amoon naa fa benn mbër Mbiite Mbiite Njaay ma ne ko sama mbër suñu père Mbiite père Mbiite Njaay moom la Moussa Ndoye laa koy xoolee ndeysaan mu mu mu mu Moussa Ndoye ak père Mbiite am nañ tuuti dañoo xaw a nduróo tuuti boo xoolee Moussa Ndoye bu takkoo jaaj ji ak ak yi nga xamante ne fekkee ñu jamonoy père Mbita Ndiaye mhm. mais bu ñu Moussa Ndoye bu ñu gisee ay photo père Mbita Ndiaye moom Moussa Ndoye dañoo nduróo mhm. mhm. mais ngi dañoo nduróo presque mais buñ jugee foofu dafa am combat boo xamante ne nii dafa jar a analyse combat bu jar a wax Balla Gaye Boy Niang sànq da koo cof bàyyi noonu mais naa buñ ci gënee xuus dañ si gën a waxtaan Balla Gaye Boy mu ne combat boo xamante ne combat bu neex Balla Gaye def 22 combats am si 5 défaites Boy Niang def 13 combats 4 4 défaites mu nekk làmb joo xamante ne nii làmb la ju neex ci ñaar diggante yi Balla Gaye du bres mooy sama bàyyi ci làmb rek dafa doy ndam mais Boy Niang dafa judd ci làmb am bàyyi mbër nijaayu mbër ay jarbaati mbër am ay am moom lu fi ñëw rek fekk lépp complet ci moom ci làmb Balla ak Boy Niang Balla Gaye bu bëggee daan Boy Niang ban façon bëri la a mën a bëri Boy Niang Boy Niang bu bëggee daan Balla ban façon bëree la war a mën a bëri Balla Gaye boo ñaa nag kenn xamul ban façon nit la ci ban façon mbër la boo ñaa xamoon doo xam ne dafa tàppet doo xam ne dafa ragal mais Balla Gaye ku xam ci laam xam ne guerrier mbër mu ko mos a gëdd dóor na la croisé daw dox sa kaw est ce que Balla Gaye dina gëdd booy ñaa wala dina dox ci kaw booy ñaa loolu ma kenn laaj boobu yow laa koy jox. abu da ngaa tudd combat boo xam te ni komba bu neex la. Mhm. combat njar ndéem. Mhm. mag ñi xam nañ ko luy njar ndéem. dëgg la boo xam ni day bokkaat ci liy dekkalaat làmbu Sénégal. Mhm. booy ñaa nee naa la wayli wayli la tam la saa jéy la bukki timis la dëgg la loo ko dàq dàq du tee dina fanaan si mhm. waaye ay kam yu dajeel bu dajeeg sàmm bu farlu mhm. yoru yàkkam nga xam ne du nelaw mukk dëgg la de bilaay buñ dajee coow la dina bari dina bari booy ñang daa bëreeg lu bari mhm. ndax yaakaar naa ne su ku bëreeg brise de mer waaw bëreeg ngiis bëreeg aykon bëreeg Pape Sène bëreeg Amaneex bëreeg Dolf dëgg la bëreeg Saaka Joor Saaka Joor xoolal jarut sax may lim ci parmaresam waaye nga dugg ci Balla gay de qualité am. oh bëri na ak Papa Sow doy na làmb. dëgg la. bëri na ak Saalum Saalum ci tàkkusaan doy na làmb. kilifa yi bëri na ak kilifa yi. oh bëri na na ak ñaari yoon. Mhm. bëri na ak Balla Beye. bitaay bëri ak Modou Lo bëri ak kooku abu làmb daa dekkiwaat. dan Balla Gaye moo ma moo ma gënal doon droit des arènes. ci la waaw combat bi. Mhm. Boy Niang dafa dugg cour des grands. bu rek Lac de Guiers Lac de Guiers daan ko. avertissement. Mm-hmm. mu bëreeg ki nga xam ne moom mooy Tafatine. mu Tafatine daan ko. Mm-hmm. mu ñëw bëreeg Balla Gaye coow li nag dina bari. Mm-hmm. waaye lay Balla Gaye du Boy Niang du Lac de dëgg la de. Balla Gaye dàq bëri ci làmb ji loolu ñëpp nangul nañ ko. ci lu wér ju am la. Balla Gaye mësta am match nul contre Gris Bordeaux rek la amee match Balla Gaye nekkul mbër moo xam te ni dafay xaar bu arbitre ne pur. deux minutes trois minutes bu ko ñëwut day dagg jéng yi daw wut si la attaqué la te am na fit mën na xeex am na jom du ragal mais mais mais makan dagguma la foofu Balla Gaye bu dee maanaam daw wuti booñaa riir parce que gis ngeen booñaa contre mook saa kees parce riir wuti ko da koo ñam caf caf caf daw sàcc sàcc ko suuf est-ce que Balla Gaye bu defee loolu yan conséquences ko mën a jur ci làmp booy ñan dafay bëree trois temps booy ñëwee bu nee cat bu nee coppe tànk. Mhm. da ngay defee tànk bi danaa ko fa yàllax daw fas ndiggali. dëgg la bu fasee ndiggal da lay dàq da lay biij. Mhm. gauche nga bañ mu biij la droite rek da lay dàq cabaxal. waaw mais seetlu nga dara ci booy ñaa. mooy lan. ma mbër la ma xam du mboot. du mboot bu la booy ñaa du tëgg mboot daw jargan Balla Gaye de da lay sànni mboot nga bañ mu def demi flexion xar la. Mhm. tibb la ci suuf jargandaloog yow nga bañ mu taf palaake. te seetlu nga booy ñaa dafa am yëpp dafa am problème bañ ko eggee fi fi mu mën a mbotee mbër mi. du mboot. contre Zos Zos dafa sori bu doon mbotkat la mënoon na ko fël mbot ko. Mhm. même bu Zos daanu dañuy tàqali ko. Mhm. contre Amane Amane dafa daw këf ko yëlëb ko. Mhm. daw ak moom boo ñaar ta tànk ba si biir suuf tànk Amane. mais déclenché wu mbot. mbaa xam nga ne booy ñang dafa am problème mu jël si mbër. ñu ko daan ñëpp ñëpp ñëpp ci làmb da leen a jël si daan ñu daan ko. te saa bu leen jël si koo daan. muy première défaitam. deuxième défaitam Zos daf ko daan troisième def am Lac de Guiers la. ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine. dëgg la Balla day attaqué du xaar mbër. Balla mais mais Balla Gaye tamit am am na foo xamante ne nii moom tamit euh, maanaam du Balla Gaye Balla Gaye mbër mu ko songu si milieu tëj bu mhm. laa ci wet yi dootoo ko doole ci bëre. Mhm. mais mbër mu ko jël un millier. Mhm. saa bu ko bu ma jël bëre moom da koy song da koy du ko xaaj. da koy jël ci digg bi. te mbër dañ naan ponkal ba ko sonn nga koy xaaj. Mhm. mbër kenn kenn du ko jël lépp. Mhm. Balla Gaye saa boo ko songee wet bu rafet loxo bu siggee bu la doon ëpp ki mun ba moytu jël ba mu lay dal mooy gën a yéeme ci àdduna bi. Mhm. te saa bu jàppee day day wetu. parce que dafa mën a bëri. mbër mën a bëri dëgg mooy risque joxe wet. mais Balla Gaye saa ko songee milier. day am problème. waaw xam nga Balla Gaye abu dafay ndaanaanu bëri. gis nga li mu bëreeg ko li fay. waaw bëreeg koog Ousmane Diop. bëreeg koog bëreek ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak Boy Niang man na xeex xeex bi set na. Mm-hmm. mais booy xool bi muy bëreek lees 2. Mm-hmm. école de lutte Balla la ware mm-hmm. dafa attaqué lees daw di ko dàq. waaw Boy Niang weesoo la ngoom ne coppe tànk bi. waaw daw dàq biij mu bañ mu biij góos rek takk dóor ca baxal lees 2 daanu mu daan ko dolf ci bëre boobu. daan ko saako joor daf ko cas. oh jël ba daan ko saaka joor. maanaam li muy bëree Boy Niang ci li muy bëree bu xanaa changé waat stratégie bu bëri ci contre bi muy bëree ak Balla Gaye mm. mais li may bëree gaw ma ne mën na daan Balla Gaye ci bëri li muy bëree bu mm-hmm. changé stratégie mm-hmm. ah mën na ko daan mm-hmm. mais ci li muy bëree gaw ma ne mën na ci daan Balla Gaye Balla Gaye tamit bis bu attaqué Boy Niang làmbam yàqu Boy Niang am Lionel Messi la lépp lu tegu ci bopp bi mën na koo dugal mën na koo dugal de bis bu ko Balla Gaye attaqué si ko daw wut si ko ngeen gis jël bu gaaw ci Balla Gaye bu ko xaaree nag boo ñëwee dafa am problème boobu ñi ko xaar ñëpp. ñu ko daan combat mi mu jaay laaj de guerre bi ñëwee téye seen bopp dafa jaxasoo tëj bëre bi. dëgg la boo ñëwee ku koy dàqi rek da lay daan facilement. ay dolfu ñi ko daan luur yi mu daan ñëpp dañ ko dàq. ay ngiis ñi ko daan ñëpp ñëpp ñi mu ñëpp da da da ngay dajeeg moom. dëgg law daw dàq ko mu bëree jëw ci suuf. Mm-hmm. mais boo téye sa bopp. non day am jafe jafe-jafe. moo tax man la boo ñaa kenn xamul tàppe la kenn xamul euh, euh, euh, am na fit la kenn xamul amul fit. Mhm. parce que mbër la moom du jël ba risque ci làmb moom boo ñaan. Mhm. que mbër la moom lépp lu muy def rek calcul baa bari. Mhm. bopp bi. la ciy liggéey de trop. làmb nag am na fay toll dafa am ñaari mbër nekk ci làmb li jënduñu li nga indi li ñoom lañ indi rek lañ gëm Balla Gaye Ama Baldé. xamuñu da mën a xeex xamuñu da ngaa mën a dóor. xamuñu da mën a bëre. làmb kuy sóoraale du ko def. Ama dafa jàppale ne du yaram benn foo dóor bu saf. Balla Gaye buy ñëw ci lam loolu lay ñëwee. Balla Gaye yaram ñëw ci mbër mi la mu indi. moom li mu indi moo ko concerné. boo ñaa nag calcul dafa bari. combat tactiquement de lay bëree. man saa bu daanee mbër jël bu lay rëy. du du daan mbër jël bu ndaw. mais dafa am lu ma xam a yëm ci côté combat bi ci côté li nga xamante ne mooy ci côté Balla Gaye. dama ko xool. sama xel dem ci contre moog Issa Pouye jamono ji Balla Gaye dafa mu ngi liggéey lu métti daa ñuul kooku xam ne yaram bii dafa suur suur na contact yaram bi suur na doole boo ñaan nag gën ñàkkoo gis depuis seen signature ba su fa lay sonaanoo keroog xaw ma nag état bi mu war a indi le premier janvier mais le premier janvier ñëw ñëw na. ñëw na maa ngi yàgg. ci yéen yàgg ci état boobu laay ñëwee. Uh-huh. Balla du nga ëmm seen daan ko ñaari yoon ci Pikine. dëgg la. booy ñang ñëw bëgg koo génne làmb ji. Mhm. daan saakees bëgg a daan Balla Gaye mhm. ñaaw na ci waa kër du ba lees surtout koy doomi mbër. Mhm. doonu mbër gi. booy ñang bis bu ko Balla Gaye daanee bu yeboo bàyyi làmb. ndax du safeeti. dëgg la doo bëreeg ñàkk bëreeg Tapha Tine ñàkk. bëgg a bëreeg Balla Gaye ñàkk. muy combat boo xam te ni ñoom ñaar ñëpp defet jigu ci kenn. Balla daa war a bëreeg Eumeu Sène après waaw Balla bu nii leeg Boy Niang wàññiwut ci carrière am dara. dëgg la ndax Fall dafa daan wax li sama papa Xaadim di wax. Mhm. ku yàgg ci mbir ku la man fekk la ci. dëgg la de. ku ci mbir. Mhm. ku man fekk la ci ba xam Balla Gaye 2 Boy Niang nga koy génne làmb ji ba xam dina confirmer woon ne Eumeu Sène ya damaa juumoon ci ñaari combat yee. Mhm. ba xam ba xam Boy Niang dem na France waajale ji Balla Gaye kon combat bi am na fu ko toll. Balla Gaye demagut ba xam day des liggéey ñi mu war a liggéeyal ba xam day voyage ba xam làmb ji jaral na ko mais ku xool Balla Gaye état de physique bi ma gis démb ak bërki démb xam naa ne làmb ji jaral na ko waaye Boy Niang tamit bëreeg Balla Gaye jar daan Balla jaral na ko lu ne ci làmb nee naa la moo dàq roi des arènes ndax Balla daa bëreeg ñëpp ñu mu war a bëreel ku def 22 combats 5 défaites te ñi la daan ñëpp dañu laa daan ñaari yoon bennam Issa Pouye moo ci bokkul uma seen ko daan ñaari yoon Bombardier ñaari yoon ak Issa Pouye mooy la booy ñan ko ko daan ci làmb saaka jooro ko daan ci la kii ko daan ci làmb zos mhm. ak taf a neex ak tafaati nag Lac de Guiers kon ñoom ñaar làmb du parmarès bu doon parmarès seen boole Balla Gaye du bëreeg Boy Niang du bëreeg moom dëgg la waaye garab ci kaw lay fekkante dëgg la garab dëgg ci kaw lay fekkante mhm. tey Boy Niang daa màgg fekk Balla Gaye ci kaw mhm. te làmb ji dama laa wax ne la yi daa jeex ci kaw ñépp bëri nañoo ak seen biir ama seen bëri na ak Balla ñaari yoon ak bii muy trois fois Gris Bordeaux bëreeg Balla Gaye ñaari yoon Bombardier bëreeg Balla Gaye ñaari yoon Modou Lo bëreeg Balla Gaye ñaari yoon ah fi la yàmb yam faaw ñu may seeni rakk ci chance mooy yoon làmb ndax Moustapha Gueye bi muy bàyyi làmb daa ñëw jël avance su Lac de Guiers waaw jël avance su Eumeu Sène mhm. jël avance su Balla Gaye la bëreeg ñoom ñépp may leen chance génn làmb ji mhm. Yékini bi muy ñëw lan la wax daa bëreeg Moustapha Gueye mhm. bëreeg Balla Gaye bëreeg Balla Bèye daal ne nag na xale yi ñëw ma may leen chance kenn la te bu moo weesoo ci mois bi gën naa ne du ma ñoom ñu ne ko mooy kan ndeke booy mooy Balla Gaye 2 moo koy génne làmb bi mu bàll gay Gaye la bàyyi làmb dëgg la may laat de guerre sans bàyyi làmb mm-hmm. làmb noonu lay demee dañuy dem ñoom booy Niang dañuy ñëwaat ñoom Balla Gaye dañuy dem ñoom booy Niang ñëw bu ñëwaatee yen xale yi ci kawaat ñoom Reug Reug ak ñeneen ak saakes ñooñu ci kaw lañ bokk ci tournoi bi lañ bokk ak ñoom Siteu mm-hmm. ndax tamit laat ger guerre mm-hmm. bu bëreewut ak Siteu ci làmb yaakaar naa ne mën naa bañ a gaaw a bëreeti mais gis Siteu ñor làmb wax naa la ko sànq dug maas dabante la Siteu bu dul dara mais public bi ko topp moo ko boolee ku ne ci làmb guddul rëyul la sama papa ñu ko bàyyi doon wax Modou waaye jom jàkk fut bi foo ko natt weesu na ko ci njàmbaar mhm. bi muy ñëw ci làmb kenn foogu ko woon bër mi comme comédien bi lañ ko foogoon ndax boo xoolee si tag jaal wi si tag bi si tag ñépp kenn foogee ko làmb mu daan ay rouge bordeaux mhm. daan ay naxa-naxa daan ay frasier dugg ci làmb ñëpp fooguñu ko woon mbër mi kañ la ko foog mbër mi bi mu daanee Zarko la bokk ci làmb dëgg la daan naaru sokaas mhm. ñëw baatal récolte bi si te bëreeg saa mhm. ñàkk làmb nag du baax matin la chaque jour nit daan ko ko raw dëgg la chaque jour mhm. day daan bër làmb woo wëlbatikuwaat mu dem ba rawaat kooku du ko soxlawaat dëgg la mook Lac de nag du kii mais làmb leen boole ci ténor ñàkk Lac de ku mu bëree la Lac de Guiers ñàkk adversaire moo ko boole ci te et puis war na ko mën a may loxo. war na ko mën a may loxo. waaw Siteu bu entraîné yokk doole. njool la moog Lac de Guiers ñor la ponkal la toll ni mbër di toll. waaw bu entraîné yokk doole ñi may yaramam yi teg ko ci lu métti. Mhm. war naa mën a bëreeg Lac war naa mën a bëreeg sax keneen ko dul Lac de nag daa nekk ci làmb. Siteu nag te du ko caaxaane. bo Boy Niang Balla Gaye na parce que Boy Niang Siteu rek combat bu neex la. Boy Niang Siteu du ñu ndax daa am relation boo xam dafa dox seen diggante. lañ bàyyi waaye booy Niang Balla Gaye gëm naa Boy Niang Siteu Balla Gaye Siteu ñu bëri. Siteu Ama Baldé wiiri wiiri jaari ndaari la. force la. lu yàgg yàgg dinañu bëri. lamb milliard la. lamb million la lamb millier la. Mm-hmm. lamb million la. lamb millier la. lamb millier la. waaw million ak milliers ñoo fa waaw million ak milliers. Mhm. làmbam la. dëgg la bis bu ñu dajee nag di nga gis lu doy waar loolu nee naa leen du ma fi fekk damay fekk Mbàkke Bawol rek ma tëdd kër sa Alaaji Sàmba Nduur mu baax ma. Mhm. dem fa tëdd ji ndax du ma fa fekk ndax bis boobu àttanu ma ko Sénégal àttanu ko. day mel ni keroog bi métloo di bëreeg Ama Baldé rek làmb jooju du yombaam. du amaat ci ndax combattation la. dëgg la ndax ku ci nekk daan métloo da koy jaral lu ne moom Ama Baldé. Mhm. waaye daa war a wone confirmation la. ci contre Gris Bordeaux daa war a daan Ama daan rekk ko jik ci Gris Bordeaux ngir mu mën a bëreeg Modou Lo daan rek ko jik Ama mënul nii jigi ko mhm. ndax 2018 la Ama gëj ci làmb mhm. contre moom Papa Sow gëj a compétir mhm. gëj bëre jël avance su Modou Lo boobu ba léegi Modou am ni dox seen diggante ñu naan Modou Lo gaañu na ñu naan Modou Lo daa blessure ñu naan day tappale Ibrahima Kajoor production daal di doxara de doxaat seen diggante décorté combat boobu noonu ñëw boole Ama Baldé Gris Bordeaux Gris Bordeaux jógee ci Balla Gaye naan jeexal na Ama da koy yóbbu retraite mhm. wala Gris day desaat ci làmb day mosam du mos ci combat bi lay leer day mosam du mos ci combat bi lay leer jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz ah Babacar ne dañu amoon ci ay minutes jeex na mais dafa am ay ñetti xale yoo ay ay xale yoo xam ne si làmb jamono ji ay dama la gis si làmb na leen làmb bàyyi xel force dañuy bokk booy ñaa bu ndaw ak Baye Ma Ndiaye Baba Jaxal am na beneen booy di sa beneen booy de am na beneen booy boo xamante ne waaye abu xale yooyu dañuy bokk waaye làmb li ci gën a bon mooy mbër mu yëg succès waaw comme mm-hmm. million changé mm-hmm. te xale yi des am na lu ñuy mel toll ci dayo mm-hmm. toll ko ci tur tollu ko ci soppeek di jàmm mhm. dootuñu respecté te ñi leen di entraîné dëgg la te ku ko ci des dootoo gaaw a dégg daal nee mhm. naa la mbër mu wéet nekk ci appartement am duy frigo pom ak banaana gersu gisi million mhm. ne damay récupéré góor nag saa bu lekkee yàpp ba regg xelam na ci jigéen dëgg la de nañu moytu wéet yi ñoo mbër yu ndaw yooyu ku ci wéet sa làmbu yàqu ku ñu ci moytu wéet gi jërëjëf alaaji Makan na mbër yi di moytu wéet gi mais di wax mbokk xam naa ne émission bi amoon na solo lool lool lool ah, fii lañ ko xam naa ne ak ak Bécaye benn xale bi ñu bekaay bekaay deux xale bi dafa mën a bëri ndaanaan la mu ngi écrit fii jàmbaar la nekk. Mhm. combat yi mu bëri dama ko si dama ko suivre bëri ndaanaan dëgg lay bëri xale la boo xamante ne làmb war na ko bàyyi xel. Mhm. na ko booy yi coow ci làmb nii nii nii nii gomu ñu gaaw koo jël de. Mhm. am na combat alliance biram lay alliance biram ñu war a bëri mais booy bi làmb dafa am jamono ji wut yoon tànn day day yàq làmb. mais nag loolu lañ am benn émission ñu waxtaanee ko xam naa lii duuf si nag li xajul si cin li mais kon bokk ñu ko yemale fii di tàggatoo ko am mbokk ah. ba ma ñi ma war a gërëm. xaaral ma ñu jox la kàddu nga gërëm. waaw ngeen mbokk internet Actubuzz ah ñu amati mbégte kontaan saa su ne ah gis ngeen xamante mooy que suñu émission la bi tey ñu waxtaanee ko ak El Hadj Makane tey ko tey ci émission bi ñu waxtaan si am solo bu baax a baax a baax a baax mais di nuyu àdduna di nuyu Sénégal di nuyu mbër yëpp kulluxum mbër yëpp samay xarit lañu mbër yëpp parce que métier bi ñu nekk di liggéey mun ñoo noonu kenn ñun ci àdduna ñun ñëppay nekk suñuy waay man su ma demee jàmm gën nga ne abu muy jàmm gën la dëkk fi la bokk su ma ñëwee géej waay nga ne c'est la même chose Pikine c'est la même chose am samay famille nag dañuy bëre am naa ay famille yoo xamante ne ci làmb lañ nekk man ñaari mbër laa mos am sama àdduna ba bëre Yékini ne woon sama mbër ñëpp xam nañ si laa doon supporté aw moon beneen mbër ci àdduna bu dul yaa ngi dégg. Mhm. keroog ba Balla Gaye daan Yékini damaa jooy ba reeruma. Mhm. parce que Yékini dama ko musan bëgg sama mbër la woon. Mhm. lépp musa ci làmb mu ne keneen ki papi général mun laa tudde woon sama bopp man nekkoon papi ci làmb. kon ñaari mbër la mu ci am ci làmb Yékini papi général. ana ñu néew duñ ci làmb bàyyi nañ làmb. bàyyi nañ làmb mbër moo tudd bëri lu te am naa samay mbokk yu bëri. te du ma leen supporté. parce que samay mbër. samay mbokk amee duñ samay mbër. damay may nag ma gërëm tàggatoo. waaw ndax yaakaar naa ne feccam liir bu neexee nday jaay jàpp ca bag ya. dëgg la damay nuyu fenn foo xam te ne dafa dama faa bokk. Mm-hmm. ndaxte day suñu dëkk cosaan. Mm-hmm. ñu fa doon te jànge xam-xam tuut. Mm-hmm. di waa làmbaay nga xam ne ñaaw làmbaay monsieur làmbaay jaam ñu ñuul ñi ñoo leen moom jaam ñu xees ñoo leen moom damay jàpp jaam di maye mbaa may jàpp jaam di jaay waaye moo fa jógee damay nuyu kenn koo xam te nii sama pàppaay bopp la ndax nit ku baax la ci social bi muy def ci réew mi muy Kandji production. Mm-hmm. gis nañu baax gi ne ci moom. dëgg la Kandji nit ku baax la bëgg nit ki. sax rek ñu ngi koy waaw nit ku baax la mën a maye tàlle gi gaaw gi du nuyu tamit magam Abdou Kandji. Mm-hmm. ak Tafa Kandji maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. waaye nag dama ne. Mm-hmm. ki lay ñaanal di la ñaagal nag moom kooku xam ngeen ko su ma ko waxee rek miin na samay émission ma koy tudd muy sëriñ Samba Ndour da lay ñaanal <laughs> di la ñaagal te bari ko bu feesee dellu di yëngatu koy ñot ku ne nag la nga solo jotut moom ñot wut boo ñëwee këram bari na ñoo xam te dara na artiste yu baree bari mhm. boo ñëwee da ngay laajte kan mooy sëriñ Samba Ndour te du génn si télé ci yar gi ci dal gi mhm. ci bëgg doomu aadama mm-hmm. fonk doomu aadama mm-hmm. ak teraanga ji maa ngi koy nuyu au passage moom lay tëjee moom di ko nuyu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf Abou Sefa Babacar de nuyu Babacar Babacar maa ngi koy nuyu bu baax Serigne Mame Diarra Serigne Mame Diarra ah ko ragal wax lool <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi loolu moo nekkoon émission bi merci beaucoup di ah, Pape Faye Pafay waaw Pafay président ñu ngi gis liggéeyam. bu rafet daanaan la ndeysaan ci côté jàmbaar la ci trop. ci côté showbiz bi showbiz bi moom nante la mu yëngal jamono bi. waaw noonu xam xale ñoom la ñuy wër. mooy borom ñuulaayu Kaaba ga. ñaata alxuraan dafa ñuul Kaaba ga ñuul. bul xeesal bul diw. ndeysaan jërëjëf du nuyu Elmo. Mhm. bu baax a baax nit ku baax la yàlla yàlla yàggal taxawaay bi ak defal leen jàmm bu baax a baax a baax Seydou Mame Diarra bu baaxee rek